pour se convaincre que il est impossible de penser à nommer un administrateur nommé à la place des élus. donc on énormité la parce que ñu bëri ñu ngi wax loolu. ce serait une aberration une antidémocratie c'est-à-dire il faut que le ministre puisse dire au président Macky Sall nañu accepter les règles de la démocratie. nañu bàyyi les populations de Dakar la capitale puissent désigner leurs leurs élus. et que les communes. et les départements s'administrent librement par des conseils élus. Mmh. Par des conseils élus. Mmh. Pas de nomination. Absolument. C'est-à-dire bés boo indee un fonctionnaire ne ko diriger ma collectivité locale bi tu as fait une entorse à la loi. Ouais. Et je crois qu'on ne peut pas avoir un État qui surveille la loi et qui viole la loi. donc soit dañu bëgg dem vers la suppression des villes en respectant l'article premier bu boobaa nañu rassurer mais xalaat ne projet bi mën na antu. Euh, mosoon naa leen wax ba ñuy def acte trois de la décentralisation ma ne leen am na li nga xamante ne dama koy tuddee une réforme connerie connerie excusez-moi du terme wax naa ko le président du groupe parlementaire le vice-président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yaakaar dans un débat télévisé ñu génn il m'a dit saa xam nga lii duma ko wax ci plateau mais tu as raison dama leen ne woon la communalisation universelle et intégrale est une aberration sawaay Fatou Abdou naka ngay gisee benn communauté rural bi nga ne juróomi village am ah. ñu naan village bee mooy kër njaayeen bee kër njóobeen jaween ñu def ni mu nekk communauté rurale am taxe rurale mënuñu sax fay ñaari agent ah. par simple décision politique le président Macky Sall di lool léegi commune la et que mm. waaja maire la suba mu dajeeg maire Dakar Plateau comment il s'appelle le ministre de la pêche. Mm-hmm. Alioune Ndoye Alioune Ndoye qui à la rentrée scolaire jël ay tonnes yu cahier di mai mm-hmm. maire bee mënul jënd ñaari sec kon ya a maire et maire. Ah, mm-hmm. alors ma ne woon lan mooy solution bu mooy nañu créer de la concurrence de l'émulation vers les communes wax ne une commune qui parvient à avoir un budget de trois cent millions une communauté rurale qui parvient à obtenir. par de infrastructures de recette. Mhm. dem fexe ba am benn gare routière muy dugal euh, recette. Mhm. dem ba am benn garage ñoom góor xuma di ñëw di fay taxe droit transport et cetera fexe ba am marché dans les cinq ans à venir ba su budget egg trois cent millions yow communauté rural boobu tu passes de statut de commune rurale à le statut de de commune. loolu moo gën. Mhm. subitement ne communalisation intégrale. pourtant def nañ ko. et pourtant loolu ñu def moo faral tey beaucoup dañuy daje ay réunion ñu ne ñu. su may wax par exemple man je paye cent vingt trois agents. Mhm. ñoom mënuñu fay trois. quand mais dañu naan ñun nous sommes des petits maires. ma leen non <laughs> vous avez des des petites communes mais vous êtes des grands maires. quand même parce que nit nit la. parce que ressources yi bi maire la mais seen ressource moo tuuti. donc mhm. conseil bi ma leen di jox. mooy le dépérissement de la ville est prématuré monsieur le ministre Omar Gueye. monsieur le président de la république. parler aujourd'hui du dépérissement de la ville est une est une chose très prématurée. D'accord. Si ça ne relève pas de la politique. Mmh. voilà. su ma maanaam dafa dafa mel nii. ah prématuré parce que. teel teel na loolu. wax ne maanaam euh, dafa mel nii euh, mu juddute te matul. Mmh. am juróomi weer bëgg a juddu te juróom-ñeenti weer la waroon def. teel na cest dire kañ la ñu war lan la ñu war a njëkk a réglé. Mmh. est-ce que acte trois de la décentralisation bi président Macky Sall bi fi ne indi ko. te mu nekk fi léegi depuis juróom-ñaari at mhm. objectif bi taxoon mu naan dafay def acte trois acte trois de la décentralisation. ñetti objectif yi mhm.